Senegal ma def vidéo bu ndaw rek ngi pour samay mbokk samay am di jam ak ñi ma bëgg te yalla tax ñu dalal sen xel di len wax ni waji ñu wax ni dañ ko garder à vue ma Massar ci ciowal supposé milliard bu ma nit di len xamal ni ma ngi ni sama keur ak sama biir njabot nek ci jam waye len xamal ni sos yu mel ni sos nañ fi ne dama doon tukki ñu nangu sama passeport fekk bobu ma ngi ak sama njabot di reer ñu woo ma wax ma ko sos nañ fi ni damaa lekk budget ministère sport ci ñetti weer tey ñu sos ni dafa am ku ma doon dénk un milliard ma leen di xamal ni sos yooyu yëpp nag am na yeneen yuy ñëw ngeen préparé wu si xam ni am na yeneen yuy ñëw waaye ak lu mën a xew na ngeen xam ni ñun ay gor lañ ay gor juddu fi ñu war a judd te duñ daw lu ñëw dinañ ko dékku te di xamal ñépp ni man fonctionnaire la administrateur civil la de classe exceptionnelle liggéey ngir réew mi xeex ngir réew mi donc amul dara wala lenn loo xamante ni mën na ma détourner ci taxawal Sénégal maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf